seen noppub diir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 muy ab xaritam di ab boucher daal di koy nag jël xottu biteel jam ko mu jaare fa génn àdduna loole nag moo war a suñu tànk fii tey ngir fexe nag ba seet si njaboot gi xool mbir yi naka la demee gannaaw rumeur yi nga xamante ne jot nañ ko ci dégg ñu ñëw seet si famille bi andi ci ay leeral ci li nga xamante ne moom mooy fay fi jot a am li ñu jot a dégg mooy ki nga xamante ne moom moo ko faat di ab boucher dafa rek jël xottu biteel daal di koy jam gannaaw rek 10 000 rek 10 000 francs boo xamante ne nag Ibrahima daal dina ko doon yoreel ci li nga xamante ne moom mooy wàllum drogue fi ba daal di ànd ay leeral ki nga xamante ne moo ko faat di jamanka jamono ji mu ngi ci loxoy yoon ah, nee nañu nag bi la yoon du benn mu daal di nag def ay ñaawteef ah, yàgg na tëkku nit ne da koy faat wala sax mu jote ak nit daal di koy tëkku waaye nag tey mooy daj dëgg gi ndax si la faat ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima cuisine laay def damay toog waaw ma toog fajar rek lii la moom fekkee naa ko sama yaram ma ñaari kër sa dërër rek dërër dafa foog maaru jëm si moom laa koy yëg maa ngi lay def moom ñaari kër bu tey rek moom ñu koy def xam naa ma yàlla jàppale ko lan nga mujj fàttali ci muy dem Mauritanie maa koy xool naan ko bay dem damaa woo may paas ñeenti bi sama paas ma mu ne ma waa xaar ma mu ñeengoon naan ko dem ñeenti bi mu suba mu amee xaalis loolu laa mujjee wax ak moom ndeysaan jour bi muy fekk ma yàkkam ci man tamit ma ne si dugub damay dem rek bu mu ñëwee ndeysaan fekk nga nee na moom yore ñaari junni pour jox ma ko sax waaye dafa ñëw fekk ma def dafa maa bëggoo xam nga man moom rek laa am moom rek moo nekk sax gis nga bu ma ñibbisee Mourtada bi def feetu ci rek lay toog ci rek lay toog jigéen ak moom muy góor kese naa ngi des sama dund moom boo demee ba am nekk mag dootoo amati doom xam nga dafa métti bu jur sa doom ba mu màgg ndax bu mu bëgg bési mu méttee nga yor ko ba mu dëgër def sama yaay nga yor ko ba mu màgg mu bëgg ko def ko sama bakkan ñu xëy rek reyal la ko nekk na de nekk na waaye mënu nga si def nga jàpp si yàlla rek ma xam ne yàlla moom moo ko mooyoon moom moo ko jëlaat waaw waaw jàpp si yàlla rek mais lan lan nga koy ñaan jamono ji yàlla nga ko yàlla xare àjjana rek yàlla ko yàlla xare àjjana wala yàlla bu doon taamu moom xale la mënoon na maa jël waaye waaye ndogalu yàlla demul ci dara ndax métti na de rey rey yi moom war na dindi ndogal ñëw na sax ñun ñaar seet nañu ne tey rey ma woon waaye dafa métti métti na de métti na trop. tey jii lan ngay xaar ci yoon nga jàpp nañu ki nga xamante ne moom bokkal ci jamono. ndeysaan ay xale lañ rek xam naa moom tey ko sax xam naa fekk tey ko sax nga jaboot bu ne jaboot moom amaana sax sama doom mënoon na ko def loolu du dëkk dafa métti bu ma see wax dara métti na daal métti na ñun ñëpp xale lañ ndeysaan dañ daan ànd métti na jotoon nga boo xam ci Fapal. tey de xaw ma ko ñoom bi ñu dalee ànd yàggul sax seytaane rek ak ki la war a rey rek mais seen ànd noo yàggul sax xam nga xale góor yi dañu lay sax ndeysaan da ngay gis ni rek mu ne bu xaritam moom lool xam nga ndeysaan dee bi moom si yàlla la ko jaarale woon rek ay xale lañu rek bu ko juum rek bu ko juum rek ndeysaan xam naa tey bu sax ndeysaan ku dem sa rëccu ko tey bu doon bu doon prison boobu mu nekk tey rëccu ko xam nga julli boobu yàlla rek yàlla moo ko juum rek ñaan gouvernement bi rek mu def liggéeyam mu def liggéeyam kii bi xale yi ni ñuy dajale moom buur boobu noonu te wàññi te wàññi insécurité waaw moom ndax li moom gis mu ne ñu sama doom bi sax xam nga ñàkk naa ko ba pare mais ñeneen yeneen xale yi looloo tax yeneen xale yi gis mu ne ñu ngi dégg nañu rey nañu nit rey nañu nit bu baax maa gërëm tamit sama mbokk yëpp ma taxaw waaye sama mbokk yi noonu lañ si sonné affaire bi aussi xam nga man sama doole bëriwul yëpp ñoo ko fay Ousmane sama rakk dégg si moom moo koy daa métti xëy na sa bor la ñu yóbbu la ko noonu métti na de waaye mbokk yi taxaw nañu du woon mbokk yi moom yàlla na ne yàlla fay xel day fab foofu gërëm bi waaye métti na de sa doom ñu rey la bëri nañ li ñu wax ci décès beeg ay 10 000 francs ak problème drogue loolu lépp bëri na lan nga ci mën a wax. xam nga lan laa si mën a wax gis nga doomu aadama bu génnee àdduna nañ ko ñaanal yàlla waaye xam nga am na journaliste yoo xamante ne dañuy génne ay eh, kii eh, information yoo xam ne leerul diw nangam diw nii la mel diw nii la mel gis nga doomu aadama bu génnee àdduna te ñun ñu de ñun amuñu ko bon macha allah si famu bu baax lañu bokk. Ibu amul benn problème njool mel ni noir américain macha allah fa tabarakallah yàlla bu ko cat jiitu bàmmeelam amul benn problème xoola bëñam ngay njëkk a gis yaa ngi may dégg am na rumeur yoo xam ne boo koy génnee na rafet moo gën diw nàngam diw nàngam xale xale la rek xam nga xale day dox sénégal waaye ndogal bu ñëwee tamit ñëw na rek nit booy wax si ku génn àdduna na nga wax lu rafet loolu la ñu wax loolu la yàlla wax si si alxuraan bu doomu adama génne àdduna waxal si moom lu rafet waaye bul wax lu la wóorul boo waxee la wóorul rek loolu baaxul moom génne na àdduna boo pare yàlla na ko yàlla yërëm xaritam bi ko def lii nattu bi ko yàlla teg yàlla na ko yàlla teggi man njaboot laa xam naa ne yaayam moom tamit ndeysaan moo ngi nekk si naqar ndax bu doon lii moo lii moom sama doom mënoon naa def nii xam nga day gën a metti rek waaye di wax loo xamante ni leeru la loolu baaxul diw nii la mel ñaari junni moo leen booleeg ñetti junni moom bi mu génnee àdduna ñetti téeméer ak ñaar fukk dañu fekk si poosam benn xaalis boolewuloon yàlla moo dogal dee bi rek dee bi ñëw na nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xar àddina waaye wax bu ñaaw beeg rumeur yëpp jaru ko wallaahi moom xaa alalam boole wu ko kenn boo ko gisee bañ du bandi du saay-saay bañam ngay njëkk siin du gis nga ko si internet bi xale bu góor bu rafet njool si kaw macha allah fa la buy dugg si néeg bi day sëgg bu guddoon fan nit wër sëgg la lu mu am day indi sama yaay lu mu am man bu ma nekkee fii bis mu ne ñaar téeméer la may jox ndékki te Mauritanie laa jóge indaale naa sama xaalis wóor na yàlla barke Seydina Mouhamed laa jël sama yaay moo ngi nii daf maa moom bañ na ko ba bu ma demee Mauritanie wala bu ma nekkee fii sama njàmpe man lay sangoo xam nga fii du duñu bokk njàmpe waaye moom lu taq si man rek bëgg na ko même bu ma demee nii da ngay gis mu jël sama mel fe wala sama yére di ko sangoo xam nga kooku xolam bonul du bandi du saay-saay du dëgg waaye am na wax yoo xam ne rafetul nit booy génnee ay wax ay kii da ngay xool looy génnee waaw na rafet daal na rafet waaw di wax gouvernement bi tamit mu góorgóorlu si xale yi mu góorgóorlu si xale yi waaw ndax bi wàññeeku rey bi bari na torop man perte naa ba pare xam naa dootuma amaat waaye xale yi xale yi des nañu bis mu rey ñu nit rey nañu nit loolu baaxul nañ ko dindi